C'est-à-dire que le colon dit c'est le deuxième personnage de son ordre. C'est le premier lieutenant de Cheikh Ahmadou le deuxième personnage de son ordre. te kooku moom itam sur le plan économique maanaam ses ressources au niveau de l'agriculture lui lui rapporte cinquante mille francs par an à l'époque. Mm-hmm. Maam Cheikh Maam sans compter tous les titres fonciers que yoo xam ne ñu ngi tudd Maam Cheikh. Mm-hmm. c'est-à-dire que c'est pratiquement le premier entrepreneur sénégalais au Sénégal. Mm-hmm. waaw mais est-ce que d'accord nga ci ñi nga xam ne Cheikh Amadou Bamba c'est le pouvoir spirituel comme ni nga wax mm-hmm. mais le pouvoir politique est-ce que du Cheikh Ibrahima moo yore woon le pouvoir politique waaw mooy cest à que foofu mooy diplomatie bi c'est-à-dire aujourd'hui mais yow da wax diplomatie pour rafetal mais sur le plan politique oui mais cest à que woon euh, nguur gi pour pour Cheikh Ahmadou est-ce que Cheikh Ibrahima la wala est-ce qu'il y avait un organisme autour de, de, de non c'est-à-dire que à ce niveau-là à ce niveau-là on peut pas parler de politique parce que la vision de Cheikh Ahmadou Bamba c'était pas politique c'est-à-dire que vraiment moom boo xoolee boo xool sax lépp lu jëm ci pouvoir da ko doon daw lépp lu jëm ci pouvoir moom bokkul ci ayam tax en fait euh, quand aujourd'hui moom bi mu yónnee euh, maam Cheikh maam maam Cheikh Saint-Louis c'était juste pour en fait affirmer je veux dire la voie mouride parce que Mouride mi ngi commencé ci àll bi. waaw ah, parce que boobu saint ci duggagul ci dëkk bi. Mm-hmm. mais nag duggu ci dëkk bi mooy maam Cheikh moo ko fa andi. Mm-hmm. parce que maintenant foofu nag cohabitation la. parce que foofu comme ni ñuy wax au départ c'était des voisins des voisins qui se respectaient maam Cheikh joxoon na respect le colon maanaam ci set setal comme ni ñuy wax il respectait l'ordre établi. n'a jamais dérogé à l'ordre établi. Mm -hmm. il très de euh, plein de prévenance pour l'autorité coloniale. moo tax yow ñu dem ba naw ko ba def ko nga xam ne mooy nga xam ne moom la ñuy waxal parce que booy bind mooy ñaan mooy défendre Cheikh Ahmad Bamba. c'est-à-dire dans sa dans sa stratégie pour mu mun a percer ce qu'il fait. Mhm. dafay accepter. les textes et yi nga xam ne moom la tubaab bi. tout à fait a percer accepter. Voilà. même si même si lui il jugeait que ce sont des lois injustes. injustes voilà. voilà. da doon bi la woon dawal foofu. Mhm. moo tax tubaab bi ne. lu mu lu mu loyal loyal loyal xam nañ ni. Mhm. est-ce que ces sentiments sont sincères envers nous. <laughs> ñu koy bàyyi xel de. c'est vrai parce que bu fekkee son maître était catégorique. ne moom waaw ah, bu dee son maître est catégorique. Mhm. disciple bi ñëw di maslaa. c'est ça kon dinañu est-ce que kii il parce que parce que boo gisee boo tax ma ni ci sëriñ bi boo gisee sëriñ bi chaque fois bu ko tubaab bi woowee day xaar day xaar l'ordre de son moo tax ñu dafa bañ te bañul de. Mhm. ne day xaar suñu borom ndigal jox ko ndigal mu dem. Mhm. moo tax à chaque fois colon bi ne way bind ay rapport way on a convoqué sëriñ bi ñëwul et cetera et cetera. ñu moo tax moom moo tax ma ne su ce plan là mënuñu wax politique. parce que moom sëriñ bi lépp luy politique dugg ci. bon politique maintenant c'est la gestion de la cité. Mhm. tout ñoom itam ils ont ils avaient leur façon de gérer. mais pas avec l'autorité en tant que telle.